malaayika ya malaayika ya sax dañoo rus Seydina Ousmane wal Moustapha ak rasulullah ku ñu dafa rus dafay kersewu fa kanamu Seydina Ousmane ndeysaan fa lahoo ñeel na Seydina Ousmane qadrun ay daraja yu mag bal waxal sax ne aqdaru ay darajaay daraja yu mag Seydina Usmaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam li tax mu doon ko ñaanal ba mu am ngërëmal ràmm juróom-ñaar fukki junniy nit am na benn bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxaw julli juma taxaw ci minbar bi ne dama am soxla su mag di leen ko yëgal ngeen boolaate li ngeen am ngeen dajale ko muy biirul umma muy teen bii nga xam ne fi mu nekk nii doyatul waa Madina te dama bëgg ñu yàkkali ko ba mu am ndox mu doy ñëpp di ko jariñoo soxla suma ñor la dama bëggoon ngeen jàpp ci Seydina man moo tallal loxoom ne yaa Rasulullaay man na ñëpp bàyyi ma jëf ko Moustapha jox ko ca digal mu defaraat ko ba teen ba am ndox mu doy ba ñëpp di ca jariñu benn bis ñu julliwaat ci jàkka ji mbooloo mi bari lool ba mujj nit ña ëpp jàkka ja ñu bari ci biti la ñuy toog benn bis Moustapha taxaw ca minbar ba bàkk yàlla kañ yàlla julli ci boppam muy rasulillahi dal ne soxla di gaaraat na dama bëgg jàkka ji ñu defar ko yaatal ko yéen ñëpp ngeen jàpp ci ba mel na ma ko bëgg Seydina Usmaan yëkkati loxoom ne yaa Rasulullaah na ñëpp bàyyi man dinaa ko def dal di jënd kër yee ko wër yëpp ñu toj ko mu tafa tabaxaat ko muy jàkka ju rafet ju sell jooju ngay gis ca Madina muy jàkkay Rasulullaah foofe sax lañu den denc sang bi moom yonent bi foofe lañ ko denc ak Ababakar ak Omar Seydina Ousmane moo ko jëndoon day ndeysaan àddina yi dox ba yàgg ñu demaat beneen jamono yent bi amaat soxla su mag ndax jeysul usra doon xare bu war a jël ñeenti weer te buñ ko deful lislaam fay ndax yéefar ya songe nañu wet gune lislaam te faw ñu jàkkaarloo ba am baa ñu fay lislaam Mustafa taxaw ca minbar ba bàkk yàlla kañ yàlla julli ci rasulillahi ne dama bëggoon ñun ñëpp ñu dajale li ñu am ndax xare bii mën a yemb nu am ci ay waruwaay am ci ay ngànnaay am ci dund bu doy ngir mën a jàkkaarlook yéefar yi xare bi dina yàgg lool ndax dina jël lu mat ñeenti weer mbaa ñu fay lislaam Seydina Usmaan ca ngëneelam yu tedd ya jóg taxaw tàllal loxoom ne yaa rasulaay sa digal loolu man nañ ma bàyyi ma jëf lépp rasulaay ne tekk di ko xool mu ne ko bu ajjuma ji dellu see li nga laaj lépp dinaa ko indi ndeysaan ba ajjuma ja dellu see saako yemu indi ñu di ko sotti muy xaalis bu bari di ko jal la rasulaay soxla woon Seydina Ousmane indi na ko fukki yoon ak ñett ndeysaan coocee nag la rasulullah di jële loxoom di jiir xaalis ba di ko ci dugal di yëkkati naan ko yaa Ousmane yaa Ousmane ba fa nekk ñépp seen karaw bopp yi yëngutu ñu simboo seen rongoñ di jooy rasulullah di ko gërëm naan ko rasulullah yi moo la jaral lii yàlla ak ab yonenteem ñoo la jaral lii doon gërëm lu màgg loo xam ne gërëm na ko Seydina Ousmane ndeysaan coocee nag ca la demee këram di ko ñaanal ñaan yu mag yooyu ba jibril wàcc ne ko juróom-ñaar fukki junne yi nit Seydina Ousmane dina leen ràmm këroog pencum yàlla ñoo xam ne dañoo naroon a dem sawara yal yàlla taas ci barkeem